asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci Sen Sport leen Sadio Mané l'international sénégalais dal dina marqué téeméeri li balam ci English Premier League bi moom nag bu ngeen fàttale ko ay fan ci ginnaaw amoon na lu toll ci téeméeri bal waaye loolu nag mu ngi ñaaloon këlëbam bi di Liverpool mu mat yi mu joué yëpp ci li nga xamante ne mooy championnat ak Ligue des champions wala coupe mat yi mu joué yëpp bu suñu ko boolee foofu la ci Liverpool moom dugaloon na lu toll ci téeméeri bal ay fan képp ci ginnaaw tey ji nag li mu dugal mooy téeméeri bal ci championnat maanaam championnat képp Ligue des champions bokk ci coupe bokk ci Sadio Mané tey ji la marqué centième biam ci English Premier League bi naka la ko dugalee noo ko daanee Sadio Mané noo ko dugalee bu ñu xoolee li nga xamante ni mooy saison bi mu njëkk def foofu nga xamante ni mooy ci Southampton moom Sadio Mané dafa daal di woon marqué 10 bi maanaam fukki bal ci atum 2014 2015 ci atum 2015 2016 Sadio Mané marqué na 11 bi atum 2016 2017 Sadio Mané marqué na 13 bi 2017 2018 Sadio Mané marqué na 10 bi muy fukki bal 2018 2019. mu marqué 22 bi année boobu sax ci la nekkoon li nga xamante mooy meilleur buteur ci English Premier League bi moom ak Mohamed Salah ak Pierre-Emerick Aubameyang ñu tolloo kenn ku nekk dugal 22 bi ci atum 2018 2019 2019 2020 Sadio Mané marqué woon na lu toll ci 18 bi muy fukki bal ak juróom-ñett waaye 2020 2021 muy saison bi ñu génn Sadio Mané marqué na onze bi te moom sax waxoon na ne boobu nekk na ci saison yi gën a bon ci année bi waaye fukki bal ak benn lu saison bi di bon bon marqué na lu toll ci onze bi muy saison bii ñu génn jamono yi ñuy waxee ak yéen nag ci saison 2021 2022 bii ñu nekk nga xamante ne day soog a door Sadio Mané marqué na ci cinq bi muy juróomi bal lii yëpp soo ko boolewante day nekk lu toll ci téeméeri bal muy cent bi ci English Premier League bi jamono yi nag moo nekk ñetteelu jour africain boo xamante ni mos na def jaloore yi foofu la ci championnat bu Angleterre ñetti nit képp ñoo mos a dugal lu toll ci téeméeri bal ci championnat bu Angleterre ci histoire ci li nga xamante ne mooy africain yi. Drogba la Mohamed Salah ak Sadio Mané te bu ñuy xool Drogba ak Mohamed Salah jamono yi li ñu jiitoo Sadio Mané bariwul ndax ki nga xamante ne mooy Didier Drogba am na 104 bii te mooy ci ëppale ay bii kii di Mohamed Salah mooy ci topp moom 103 bii la am moo nekk deuxième Sadio Mané ñëw nekk troisième am marqué na tey jii li nga xamante ne mooy centième bi am foofu la ca English Premier League bi kon des na tuuti rek mu dal di dab gaay moom ki nga xamante ne mooy Sadio Mané beneen record boo xamante ne Sadio Mané bind na ko. mooy ñu fàttaliku ne téeméeri bal yi nga xamante ne Sadio Mané dugal na ko penalty yi bokku ci xam nga bu ñuy xool ay Mohamed Salah ay ay Didier ba yooyu yëpp seen bii am na yoo xamante ne ay penalty la Sadio Mané bokkul ak gars yi ndax moom téeméeri bal yi nga xamante ne daal dina koy dugal moom Sadio Mané yëpp amu ci benn boo xamante ni rek penalty la maanaam yëpp daf ko daal di football daal di koy dugal amul penalty moom Sadio Mané téeméeri bal yëpp benn penalty nekkut ci. beneen mbir bi moom mooy ki nga xamante ne mooy Sadio mooy ñetteelu joueur boo xamante ne mos na def jaloore boobu ci English Premier League bi maanaam joueur boo xamante ni dugal nga lu toll ci téeméeri bal te amul benn penalty maanaam dugal di dugal benn ñaar ñett ba téeméer muy 100 bi tam dugaloo benn penalty amu ci benn bal boo xam ne penalty la ñetti joueur ñoo ko mos a def ci histoire English Premier League bi Sadio Mané mooy ñetteel bi. kenn ki moom la ñuy wax Ferdinand mu ngi marqué woon 149 bi moom te amuloon benn penalty keneen ko ci topp mooy Esquet. SK bi nga xamante ni moom yàggul trop yéen a ngi koy fàttaliku moom marqué woon na 110 bi moom te amuloon benn penalty keneen ku ko defaat mooy Sadio Mané mooy koo xamante ne daal dinay marqué benn ba téeméeri bal te dóorut benn penalty foofu la ci championnat bu tax kon tey ji ñaari record la Sadio Mané def wala ñett moo nekk troisième africain bu dugal téeméeri bal ci English Premier League bi nekk tam ñetteel jour boo xamante ni dégg dugal na lu toll ci téeméeri bal te benn penalty bokku ci voilà loolu beneen record la boo xam ne Sadio Mané daal dina koy def moom jamono yi foofu la ca Liverpool. Edouard Mendy mooy beneen joueur boo xamante ni jamono yi kayiti xibaar yu bare bari ñu ngi bind ci moom xam nga moom li tax coow li bari ci moom mooy bokkul ci fanweeri jour yi nga xamante ne tànnoon nañu leen te ñu war a xëccoo ballon d'or bi. donte ne ñi nga xamante ne ñoo di France Football ñoom ñu ngi def seeni i pexe ngir jéem a liggéey bu rëy bi nga xamante ne Edouard Mendy mu ngi koy def ak jaloore yi ndax xam ngeen ne Edouard Mendy africain la waaye ak li muy nekk nekk africain mu ngi nekk ak ay tubaab foofu nga xamante ne mooy ci Chelsea di leen teg teg ci banc bi te pourtant joueur yooyu ne ku ci mel ni Kepa Arrizabalaga nga xamante ni xaalis bu baree bari la ñu ko jëndee Edouard Mendy nga xamante ni somme bu tuuti la ñu ko jëndee moo ko teg ci baam bi li ko waral mooy liggéey bu rëy boo xamante ni mu ngi koy def foofu la ci English Premier League bi niki daaw xam ngeen ne saison bu rëy la def clean sheet yu bëri ci championnat ak li nga xamante ne mooy Ligue des champions waxoon nañ ci ba noppi waaye taxul ñu boole ko ci li nga xamante ne mooy liste bi tey jii nag moom mu ngi wéy di boppam di leen wan ne kat bu fekkante ne ñoom gisuñu li muy def itam moom day continuer dégg nga di toj moom faalewut li nga xamante ne mooy ay ballon d'or boo xamante ne dañuy tànn ku leen neex ñu jox ko ko tey jii Edouard Mendy moo sauvé Chelsea ñu wax ko mu leer Edouard Mendy moo sauvé Chelsea ndax Brentford gi nga xamante ne tey jii moom la Chelsea amoon tegoon na Liverpool lu diis ay fan ci ginnaaw yàggul dara yéen koy ko tey jii nag mu ñëw sëf Chelsea loo xamante ni jàpp nañu ne keneen ku fa nekkoon ko dul mel ni mbir mi mën a doy waar lool ndax am na lu toll ci six bal yoo xamante ni benn bu ci nekk rek doon na dugg kii di Edouard Mendy moo ko ki ko dippi dégg nga juróomi Edouard Mendy dafa daal di def li toll ci six save six save muy six arrêt yoo xam ne def na ko te cinq yëpp ci biir surface de réparation yi la moom Edouard Mendy kon tey jii bu fekkonte woon ne Edouard Mendy nekkul woon koo xamante ni maanaam pare woon na dëgg sax ñii di Chelsea mënoon nañoo jël score waxuma la victoire mais défaite la ñuy jël waaye dégg nga maam liggéey bu rëy boo xam ne amal na ko ci match boobu waral na ba jamono yi Chelsea continuer di nekk ci bopp classement bi gannaaw bi Liverpool amee victoire bu rëy boobu Liverpool googu sax ci la ñuy si seetlu nañu ne Liverpool jamono yi dafa nekk ci li ñu tuddee away form li English anglais yi di wax away form maanaam match yi muy joué en extérieur Liverpool mel na ni daal kenn mënu ko ci téye ndax bi saison bi tàmbali ak léegi mën nañu wax ne joué na ci juróom-benn match yoo xam ne ci outside la ko pile maanaam ci biti dafa génn dugg football ko waaye daal képp ku mu ci téye dalay bëgg a rey marqué na 22 bii Liverpool. 22 bi marqué nañu ko waaye ñeent bal képp la ñu encaissé muy 4 bi bu ñu xoolee Liverpool jamono yi seen match bu njëkk bi nga xamante ne njëkk nañu génn contre Norwich City la woon dañu ko fekk dóor ko 3-0 génnaat dem fekk Leeds United dóor ko 3-0. dégg nga dégg nga di génnaat dem fekki Norwich City boobu ci coupe la woon dal di koy dóor 3-0 encore dem génn fekk ci Brentford Brentford gi nga xamante ne tey jii moo doon bëgg a rey Chelsea ñu daal di match ni 3 partout. Liverpool fekk ji Porto dëkkam ci liggéey des Champions daal di koy dóor 5 buts à tey jii mu jàpp Watford bu Ismaïla Sarr dóor ko 5-0 kon Liverpool jamono yi ñu ngi ci seen awee forme maanaam match yi daal ci biti moom kenn mënu leen ci téye ñu ngi wéy daal dégg nga di wane li nga xamante ne mooy seen forme ci match yi ñu jiyee en extérieur Liss Mousset Mendy dellusiwaat na Liss Mousset xam nga moom bu ngeen fàttale ko ne at yi ñu weesu daanaka match yi muy joué bariwul ndax ay blessure yoo xam ne mu ngi koy sonnal ak entraîneur ba fa nekkoon nga xamante ne daanaka du ko du ko doon jox temps de bu doy Lys Moussemedi nag dellu siwaat na gannaaw bi nga xamee dafa amoon blessure match bu njëkk bi ñu joué ci championship bu Angleterre ba mu weesoo rek ci la daal di woon am blessure dellu siwaat na tey ji waaye mu marqué dafa daal di marqué tey ji ndax ñoom dañoo dóor Stoke City ki nga xamante ne moo dugal benn bal Sheffield United moo dóor Stoke City 2 buts à 1 City nag ci fàttali kii di Abdallah Sima ñëwagul ndax dafa am blessure waaye Lys Mousset-Mendy moom marqué na ndax ñoom dañoo dóor tey jii ñii di Stoke City 2 buts à 1. fàttali leen ne match Chelsea bi nga xamante ne ñu ngi ko doon joué tey ji seen diggante ak Brentford ki nga xamante ni mooy Malang Sarr Malang Sarr moom titulaire la woon ci match boobu kon tey ji ñaari sénégalais nekkoon ci terrain bi muy Malang Sarr ak Edouard Mendy. buñ xoolee edouard mendi jamono yi sax moom daal dinay am lu toll ci 4 clean sheet ci saison bi nga xamante ne day soog a tàmbali moo ëpp sax bii nga xamante ne encaissé na ko ndax bi saison bi tàmbali ak léegi 3 bi la encaissé waaye amagum lu toll ci 4 clean sheet mooy ñeent matt yoo xamante ni kenn gisul ay caaxam moom kii di edouard mendi